champion Cambérène lay waaw doomu ndeyu gaay ay waay sunu waajaa ngi ne waliyaan dangay daan baañu daan la am nan ndoy lebu ndeysaan ay waay njaga woro man de bëgg naa la lool waaw njaga man de bëgg naa la dege njaay ay waay champion yaa ngi boy Bismilaay ñu nga ngaawe kaay leen ñu gambal gambal gundooy yaa de bëgg naa la ma jox la de waaw ay waay yaa baax yaa baaxeey man de bëgg naa la manoo ñaawe goldo na nga baaxee maam stay maam stay maam mdeede mbaay doole mbaay doole mbaay doole dinaa la way way di way ndaw hum beneen kaas Mbaye Doole bee si mbër la bëre tey daan Mbaye Doole Doole Mbaye Doole am nanu aawo am nanu ñaareel ñetteel na ñaareel jaaykatu ndekke miskere day ñëw maanaam nii rek tej waaw waaw doole bee bi si mbaay day dat mbaay doole am na nu ay di am na nu doole mbaay doole mbaay doole ay wata leng leng daan ma leng wax ay waay sunu ngi ne waliyaan dangay daan baañu daan la am nan doy lebu ndeysaan am nan falam fofa ndeysaan ndeysaan ay waay njagoro man de bëgg naa njaga man de bëgg naa la dege njaay ay waay champion yaa ngi booy loo mënoo ñaaw adureer na ndeysaan ndeysaan ñu nga ngaawee leen ñu gàmbal gàmbal voilà ba bis mi tey ñu ngi la fekk fii ci Cambérène ak say kilifa ñëw teewe fi xanaa rek damay bàyyi nga nuyoo présenté ñi nga xamante ñoo fi nekk tey bu fekkee ñoom kenn si mën na jël kàddu après ñu yor échanger question ak réponse en tant que mbër. salaamaaleykum mbooloo bi. maaleykum salaam. maa si nekk sa tural sa sant. di ziar sama sëriñ sëriñ Abdoulaye Thiaw di nga ñaanal yàlla fi yàlla bàyyi mu gudd fan am wér di ñaanal sëriñ Abdoulaye yàlla fi yàlla bàyyi mu gudd fan am wér képp ku wax sëriñ yàlla gudd fan am wér yàlla defal jàmm yàlla yàlla defal xéewal Abdou sëriñ Abdoulaye bu sunu jàmm mooy sunu lépp di ziar ñëpp di ziar waa Cambérène yëpp di kontaan seen taxawaay si lii kontaan naa si ñëpp bàyyiwuma kenn di ko dalee mag raq ñëpp di gërëm sunu monsieur bi sunu maire li mu wallahi dafa rafet xëy seeti mu ni làmba ji lépp lu si war dinaa ko def dinaa si jël sama taxawaay lépp lépp lépp ku si mel ni moog yaamaam Cambérène ñaari autorité laa fi gis monsieur le ak yaamaam laa fi gis ñooñu fi taxawu si làmba ji wallahi azim man du ma naa fekk lii dëgg laay wax lii jaar yoon monsieur le maire fu ma ko woowee mu wuyu ma fu ma ko woowee mu wuyu ma ba waaw di wax jeunesse bi man li ma mooy lan ñu mobiliser préparé lamba ji lamba ji lambu dëgg la ñun ñëpp Cambérène lañ dëkk on est ensemble te ñun ñëpp ndamu Cambérène moo la ñor si côté yëpp si bépp sport képp kuy def sport ñun Cambérène moo la ñor si lépp ak lépp lépp xam doomu Cambérène dañ si yëngatu ñun dañoo bëgg mu dem si kanam sa kaw kanam ndax Cambérène dafa bokk si tet yi Cambérène dafa bokk si tet yi da ngeen war a gëm loolu yéen waa Cambérène da ngeen war a fier si Cambérène xam ne Cambérène dafa bokk si tet yi a fier si Cambérène wala jaayante pour Cambérène dem sa kaw sa kanam si côté yëpp Cambérène warul tardé si sport xool suñu place bi ni mu yaatoo kon warul tardé si sport jeunesse su Cambérène koo si wax mun la sport bi kat Cambérène demee fa noonu loolu ba ñëpp xam nga bàyyi yu da war a taxaw jàppale xam ne doomu Cambérène la dëkk boo dem am na am na stade bu fa nekk am na bërëb war a gëm suñu dëkk gëm li ñu moom xam ne ñun Cambérène la am Cambérène la dañoo fier si Cambérène suñu lépp Cambérène la amul génn si biti fu ñu génn Cambérène la ñuy jiitaroo fu ñu mën di taxaw Cambérène la ñuy mu la yéen waa Cambérène da ñu war a taxaw que sport bi la am si boo ko walee Cambérène la gën a neexee te Cambérène que dañoo am géej mu yaatu jox ñu ñu mën xam ñu dañoo war a fier si loolu gëm suñu bopp nit ki boo gëmee si dëkk da koy gëm Cambérène ñoo war a defaral suñu bopp war ñu xaar si dara kenn duñu ko defaral ñun jeunesse bi jeunesse Cambérène dañ fier suñu dëkk di gërëm nag sama di ñaanal sama papa mbaykat monument bu mag a ngoo Cambérène wallahi asim monument bu mag Cambérène Cambérène dañoo ko war a ñaanal saa su ne lépp lu waa Cambérène di def loxo mi ngi si biir ba ni mu génnee àddina nii moo dañ ko war a ñaanal saa su ne duñ ko fàtte mukk parce que nit ki doo fàtte démb ku lay defal lu baax su la wanee ginnaaw sax war nga kaa wax moo tax suñu papa mbaykat amuñu fayam dafa yàgg taxaw si dëkk bi si côté yëpp man gis naa façon sportive ne mu dem mu taxaw la si côté bu ne kon ñi koy ñaanal fi mu tëdd yàlla gënal fu mu jugee yàlla ajjana doon ndox laayam ak bépp mboolem mboolem jullit waaw di gërëm doomam yëpp di gërëm ñoom libaas ñoom ñoom ñoom waaw xam di war a gërëm waa Cambérène di gërëm jeunesse Cambérène xale Cambérène ñoom ñëpp aw ma seen fay wallahi azim waaw waaw di gërëm sama sama yaay nag sama yaay dafa sonn si man dafa ma jàppale taxaw ma si côté yëpp chaque jour mooy pousse chaque jour mooy pousse nga xam da nga a moo tax gëm-gëm boobu laa am di gërëm nag ñii nii ñii sama mbokk ba di taxaw fii nii sama morom yii barki alxuraan def ay ndaanaan la te kenn dàqul mais bu leen jàppalee tuuti ñu te da leen a jàppale kàmbu leen da war a jàppale jeunesse bi fi nekk sama mbokk mbër yi yëpp ñi kat ñi si biti ëppale ñu dara ñi si biti ëppale ñu dara jàppale nag ñu ëppale bis mi mais bis mi wasalaam gannaaw nuyoo beeg jàmm sante yeeg yooyu yëpp tey sa première sortie waaw monsieur le maire dina wax léegi ah dina wax léegi dañuy def ñetti question rek wala ñeenti question mu gën ndax ndaxte dafay guddi sa première sortie tey gannaaw bi nga changé écrit dem jàmbaar wrestling premièrement dama lay laaj ñi nga xamante ni teew nañu ku ci mel ni ki ñoom Garga 2 ñoom Goro sook Fra ak ñeneen ak ñeneen tey lan la la def. waaw li may wax rek mooy xam nga jàmbaar xam nga dafa nekk écrit wax xamante ni écrit boo xamante ni xam nga macha allah daal gis seen taxawaay si combat bu baax a baax a baax tey li waral tey boo gisee waral yëpp tey ñëpp teewuñu fi mooy lenn. mooy parce que tey dañoo am ay champion yu mag a mag yoo xam dañuy préparé combat ku si mel ni Modou Lo ak Papa Sow te open presse bi tamit xam nga benn temps bu gàttal mën na leen bàyyi ñu mën a dem préparé seen bopp nekk seen bopp moo tax ñu yabal ñenn ñi ñëw fii ñenn ñi nekk fee boo gisee sa gars yi dem nekk fële parce waaw di gërëm coach yeeg ñëpp xam nga voilà très bien waa gis ñu ngi loolu dafa rafet xam nga loolu dafa rafet di dafa dafa rafet quoi man sama xol dafa sedd tey vraiment xam nga am ay kilifa yoo xam ne yow xale bu ndaw xam nga nga ay kilifa loolu tamit xam nga sant yàlla daal sant yàlla est-ce que du doon sas si yow waaw sas bu rëy la si man sas bu rëy si man parce que waa Cambérène dañ ma sas xam nga waa Cambérène dañ ma sas xam nga waa Parcelles sas ma waa Yoff sas ma fukki pénc ak juróom-ñaar yëpp sas ma kon dama war a am neneen nu ma war a ñëwee li soxla mooy te ise boobu insha allahu rabbi si kàttanu borom combat bi dama koy indi ndaxte combat bi damay daj lu métti samay course may ñu dara mu ne ma bu capital ah combat bu capital combat bu am solo pour yow ak pour sa adversaire di Papa waaw combat bi dëgg la woon dëkk bee ko soxla mais man maa a sax soxla dëkk bi xam nga soxla combat bi dafa neex parce que man combat bi man loolu laa sam combat bi maa gën a soxla dëkk bi dëkk bi dañoo soxla combat bi sama équipe yi soxla combat képp ci amoon sama soppal dafa soxla combat bi ñoom ñëpp ñu ko soxla sanu monsieur le maire bii dafa soxla combat bi mais ñoom ñëpp maa ngi ko gën a soxla boo boolee kon soxla yi dafa dajaloo ñëpp ñu jël ma dénk ma ko kon yaakaar yàlla bu yàlla yaakaar yàlla bu yaakaar tas te incha allah rabi si kattanu borom gëm naa ne yaakaar du tas mu naan soxla boobu ngay wax noonu moo la ko gën a soxla moo la gën a nekk mbër doo mbër dafa am yoon bu muy dem te moom dafa retard ci làmb yow taxaw muy wax waaw man taxaw ma mu wax loolu lépp amul problème le jour moo si am solo le jour bu ñu duggee maa moom ba arbitre dox ba arbitre sifflé maa ngi moom kese si biir bi boobaa dinañ xam maa moom kan moo kan moo retard ak ku retardul ak kan moo war a jëf boo man incha allah rabi xaw ma lu mënti andi mais na lenn lu tar la fi fekk ta du ko fi sax xaar balaa loolu lépp laa ji jeex ñu dem ñibbi incha allah rabi si kàttan boo wax lu tar papa moo la gën moom lu tar si moom la fekk baax lu tar comme nan la fekkee si moom baax comme nan jàmbaar la gaynde la du arrière tànkam du dellu ginnaaw 14 victoire 14 victoire laa am incha allah yàlla doole 14 victoire laa am kon tey ji su ma bëree ak moom tey daa am demee rek mais waru ma ko sax xool te incha allah rabi suñu jugee si combat bi di ngeen xam ne waru ma ko xool yee. bu fekkee yóbbante boo koy yóbbante laa nga koy wax ci kanamu caméra yi. man bul ma xoolati. man li ma koy yóbbante mooy mu am yar am respect kese laa koy yóbbante si biir géew bi nag soxla ma yaram soxla ma respect lu ma jaay ma jënd ko mais si kaw public na am yar am respect parce que ñaari mi taxaw ni lu neex nga mais sa digganteeg yaa moroom góor foofu loolu dara foofu garaawul foofu lu ma wax jéggal naa na taxar naa si bañ ma si dara. taxar naa si boobu lan moo lay neex ngeen taxaw cons wala ngeen ñëw def ko taf taf yi de teel a yeewi gars yi wala. man de xam naa ne làmb ji lépp lan ma yabee lép lépp lépp lan ma yabee te man léwu laa te xam nga fii ma dëkk nii yéen gën a xam fii foo fii xeex nañ fi xeex fu ne def nañ fi lu ne kon ñun ku ñuy woo si xeex rek dañuy woo si guuxub soow noonu la fa demee. looy mujjee tàggatoo waaw li may tàggatoo rek mooy sama côté li ma wax rek laay jëfee làmba ji mooy boo ko rayul da lay kon balaa maa dama koy ray incha allah rabbi dama su ma ko rayul daf may balaa maa ray dama koy ray amul lenn lu ma si xaar parce que làmba ji loolu la laaj làmba ji sama baqen laa si teg sama baqen laa si si leneen lu sama baqen parce que loolu laa gëm dama ñëw si kii bi ba xamante ni dama ñëw si kii bi xamante ni dama leen war a wan ni tey ji man tey comme jàmbaar bi ni woote dama bëgg xam ne jàmbaar lan dajale dama ñëw si équipe bi xamante ni comme jàmbaar bi ñuy woote ay jàmbaar lañ dajale te jàmbaar yooyu ñu dajale tey ji dama bëgg a wane tey dama leen bëgg a wane man si jàmbaar yooyu laa bokk waaw loolu waaw loolu yàgg na parce que làmb daf ñoo jaral te déggoo li ma la ji nga ñuy taxaw ñi ñuy taxaw ñëpp xam nañ làmb def nañ si lu ne làmb mënuñu def ñun si làmb lu leen jaaxal taman ba ma dajee di bëre ba léegi amul benn benn mag bu ma gunge si làmb maag samay morom doon ànd tey ma am ay kilifa yu ma àndal kon tey dinaa gën a teg te tey dinaa gën a teg làmb tey comprendre ba bis mi dafa am pression ragal caméra yi moo tax man mu man rek lay xool sànq ba tey ñu ngi koy wax xoolal caméra yi dafa am pression bu gisee ay ñoom Balla Diouf ak waa Parcelles waa Cambérène monsieur le maire génn paa yi génn ñëpp génn pression bee yëg ci bopp déggoo li ma la man amul lu may négocier man bis bu ne bëre naa ko sept grands combats am kon kooku amul lu muy jaar sept grands combats laa am ma pression si làmb bis bu ne naa ko ma pression si làmb te fii Cambérène ñëpp xam nañ kuy bis ñoom ko wax Cambérène boo wax bu du la fit moom da nga koy jëlee tege na le avant tout ak leneen ak leneen ak leneen waaw. waaw di gërëm nag sama coach yi sama coach yi nga xam dañoo sonn si ñoom ñëpp Bala Diouf ah. <laughs> incha allah rabi incha waaw ñoom Bala ñoom Yaram Ibulaay coach si kii. Euh, Lato ñoom ñëpp di gërëm ñoom suuko xam nga di gërëm ñëpp di ñaanal nag Papa Sow yàlla na ko yàlla may ndam si combat bi mu jëm Papa Sow yàlla yàlla may ndam si combat bi mu yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam Modou Lo ñoom ñëpp bàyyi ma si kenn Modou Lo yàlla na ko yàlla may ndam si kaw combat bi mu jëm mu ba mu neex ba mu sàppi ka mu jël jox ay raxam mu jël jox ay raxam yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla jàppale si li mu nekk ñoom ñëpp di gërëm waa Parcelles di gërëm ñëpp di gërëm waa Cambérène ñëpp di sant sama yaay di gërëm a lu béyti rasul ndax ñooy sama yaakaar yi àddina ak àllaaxira yaakaaruma kenn ku xam nga di gërëm sama monsieur le maire sama monsieur le maire jàpp na si affaire bu baax a baax. moom jox kàddu mu wax monsieur le maire tey nga def la déplacement. ñëw euh, teewee ci open press sa mbër sa doom soutenir ko. ñaanal Baye Ablaye Thiaw Laye yàlla yàggal ko fa may ko wér ak bépp kilifa diine et di sant euh, yàlla bu baax bi ñu teewee si open press bi waaye di gërëm ki ko waral muy Bismi Ndoye bébé Bismi. et eh, ndax lii manoon na ko def en dehors de Cambérène moo na yóbbu fu nekk te bu ñu woowee dañ koy fekki waaye nag indee fii Cambérène lii de war ni gëm sa bopp la maanaam cosaanam gëm na ay mbokkam waaye aussi gëm na fa mu juddoo te mi koy dundal lii ñu rafetlu ko lool eh, ñaan nag bu mu bu mu dañati ndax dañ koy ñaanal ay victoire victoire ba mu jël même drapeau national pourquoi pas. ndax mën na ko te baax na. ba maire Guédiawaye du la ko yóbbul. non du ñu ko yóbbul arène nationale la de. boo yéexee maire Guédiawaye. non du ñu ko foofu yëpp. foofu yëpp ñoo ko moom Guédiawaye amul foofu yëpp Cambérène la. foofu ay toolu waa Cambérène la woon. ñoo leen ko joxuñu dafa arène mm. donc dañuy dem jëli suñu yëf indiwaat indiwaat ko fi mu nekkoon combat bi day commencé ci maire yi d'abord waaw ci maire lay commencé ñun pare nañu yow pare na sa ci pare pare naa <laughs> di gërëm di ñaanal bis mi yàlla defal ko ndam ndax xale bu baax la xale bu yaru la mm. ay mbokkam gërëm nañ ko waajuram gërëm nañ ko dëkk bi yëpp gërëm nañ ko jàppale nañ ko mm. di ko ñaanal ndam mm-hmm. waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Cambérène yëpp di nuyu monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu penc ñaar yëpp fépp fu bu nekk rek maa ngi lay nuyu di la jox loxo. tey nag ñu ànd ak sunu rak bébé Bismi vraiment ànd ak moom préparé ko vraiment ñëw tey ci open presse bi gis ni ay mbokkam yëpp génn nañ parce que bu ñu nee nit baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax tey Bismi wane na ni tey ay mbokkam ñëpp ñi ngi ci ginnaawam wax ji nag du bëri ndax bés bi dimanche la muy bëreeg champion bu mag ku ñëpp xam Sénégal nangul ko ko vraiment ñu xam ko xam jabaram wax dëgg yàlla ñu nekk euh, ay nit yu baax bis nag nekk xale nekk ci yoon ñu waajal ko di ko ñaanal yàlla parce que lépp lu ñuy waajal mbër pour mu jëm ci combat waajal nañ ko ko lépp lu ñuy euh, ni ñu koy wax ni ñuy sasee mbër lépp li nga xam ne ñu ngi koy ëmbee mbër di ko waajal pour mu dem ci bës parce que bés xare la waajal nañ ko ko li ci des nag wax ji jarul bëri yàlla rek moo yor ndam ñu ngi koy ñaan yàlla sunu borom mu may bébé bis ndam bu rëy bu amul benn werante mu ñëw fekk ci ay magam vraiment partagé ak ñun victoire bi. wax nga ne ki muy dajal champion la. Mhm. gaynde la ku mën a bëri la. xam nga ko ba xam entourage am. Mhm. loolu moom xam nga ko bu baax a baax a baax. Mhm. mais est ce que tey ki nga xam ne tey mooy seen mbër bee bis am na lu mu manqué woon man xam naa yow xam nga keneen xam na keneen xam na. est ce que loolu mottali ngeen ko xel dal na léegi. waaw loolu nekkul lu ñuy wax lu ñuy wane la. loolu bis mi moo koy wane ci géew ba. li ñu liggéey liggéey nañ ko mi ngi ci moom. ci bés ba nag parce que loolu mu manqué yéen da ngeen daa toog di ko gis. du lu ñuy kon lu ñuy gis la kon nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ko wér bàyyi ko xelam bàyyi ko xalaatam bàyyi ko wéram ba ci jour làmb ja la nga bëgg gis yow mu wan la ko ñun la ñu bëgg gis ñun entraîneur lañ def ci moom di ko xaar ci bés ba bëgg ko gis yàlla may ko kattan at tal ba pare teg ko loxo ba mu wan Sénégal ñëpp ni champion bu mag la bàyyi xel ñaanal ko yàlla ba roi des arènes. yow moom yow lañ dénk loolu lan ngay wax xel dal na ci moom. waaw lu Balla wax rek. ñaanal suñu champion bi yàlla may ko rek. liggéey nañu nu ñu naan liggéey lépp. mais lépp dañ ko bàyyi suñu loxo suñu borom rek. di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu sedd. coach si dama gis ne sur le plan physique jëlul volume. toujours le même bébé Bismi wala boog bu yokkee tuuti lay doon. waaw bi bébé yokk na tuuti. Mm. yokk na tuuti parce que méthode liggéey bu ñuy liggéey la. Mm. ñun mbër bu ñuy liggéey. bëgguñu mu doon euh, mbër bu luur luur luur mais da ngay nekk luur léger ndax nga moom sa bopp ñun daanaka loolu la ñuy liggéey ku xool bis xam ne liggéey na comme nu ma la wax rek day ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam rek daal waaw loolu daal euh, moom laay ñaan yàlla man mais naturellement ku xool bis hmm. du mbër mu rëy ku xool bis mi xool taayam xam ni euh, faux maigre la hmm. nu mu toll doolem ëpp na ko hmm. nit nag man moom li may wax rek dijj moom dëgërë ma ko gënal parce que boo dëgëree lépp lu ñu bëgg def ci yow dinañ ko def ci yow te bis mi macha allah bis mi kenn amul lu mu ko reproché. mën na bëre mën na xeex am na doole. donc nag doole du loo xam ne nag danga koy gis. doole danga koy làmb daj ko. te ku ko làmb daj ko. jaaram sa baax ah. am na lu muy mooy. no boo yoree xale. mu mat la mu war a mat. mën la mu war a mën. doo ko moytuloo da nga koy préparer moom li muy indi ñun dañoo am projet amuñu lu ñuy moytu bu ñu ñëwee suñu projet la ñuy suivre. non xeex bi moom koy moytu. non déggoo ma amul lu ñuy moytu. loolu yow yaa ko wax en tant que journaliste yow yaa ko wax loolu yow yaa ko wax mais xam nga kañ laa lay tontu bu làmba ja jeexee ba nga dab ma di ma laaj ñu ngeen préparé mais lu leer laa lay wax bis mi du moytuloowuñu ko dara parce que ñun yoruñu mbër mu ñuy moytuloo. parce que adversaire am yorul loo xam ne ñun war nañ ko ah, mën a moytu. non déggoo ma de. ci bés boobaa. Hmm. xëy na tey mbër mee fi taxaw yow yaa fi taxaw avocat du diable di ko waxal mais mbër mi tey bëggoon naa mu taxaw di wax yaw li ngay wax mais lu leer laa lay wax. lu leer laa lay wax. bis mi pare na à 100 pour cent di ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla àggale ko ci bës bi at jàmm at sagoom di ko ñaan yàlla nag yàlla rek moo yor ndama ah. hmm. ñun pare nañu. li ñu wax l'homme propose Dieu dispose ñun pare nañu on propose et yàlla na yàlla disposer jërëjëf